Euh, dañ fi ñëw tey seet si Serigne Ahmed euh, recteur ak sëñ Maam Thierno mi nga xam ne moo yore mooy coordonné liggéey bi fii ci université si ndigalu suñu directeur général Sékou Dramé euh, ak si ginnaaw daf fi ñëwoon moom si boppam directeur général visité université bi bi mu ko visité bu ñu waxtaanee ak responsable université bi mu am ay ay demande yoo xamante ne jot wax nañ ko si yi leen itteel wala yi leen gën a itteel maanaam urgence si biir urgence yi donc mu amoon euh, fibre optique travaux de câblage connectivité maanaam boo xamante ne war nañ ko fi def biñ ko euh, xaymatee xool ko si biir fondation Sonatel parce que xam ngeen ne Sonatel opérateur la waaye nag dafa am euh, wàll boo xamante ne di ci yëngatu bu baax ñu duppee ko RSE responsabilité sociétale d'entreprise si responsabilité sociétale d'entreprise boobu nañ Euh, taxawal fondation fondation Sonatel boo xam ne 2002 donc ñaar fukki at ak benn la am ren euh, muy lu yàgg donc si euh, domaine nu santé donc wér-gi-yaram éducation dañ si yëngatu bu baax si biir loolu donc bi ñu yóbboo demande université bi fondation Sonatel ñu daal di joxe accord financé génne enveloppe bu 300 millions de francs CFA boo xamante ne di leen ko indi fii ci université bi pour euh, dimbali ko université bi si wàllu câblage ak si wàllu connectivité loolu donc moom la ñu indi woon comme nouvelle directeur général ni ñu da ngeen di ñëw fii dajeex responsable yi gannaaw yónnee woon nañ bataaxal ngeen wax leen ne à partir de maintenant daal dinañu def loolu waaye surtout dinañu taxawal partenariat stratégique ñun Sonatel fondation Sonatel ak université bi pour jàppale leen si euh, xarale yu yees yi am na benn centre boo xamante ne euh, yéen ñëpp xëy na yéen a ngi koy dégg muy Orange Digital Center muy centre boo xamante ne dañ fay tàggat ay xale si xarale yu bees te duñu fay dara ñu ngi ko taxawal depuis 2018 donc mi ngi bëgg sax am ab diir loolu léegi dañ ko commencé décentraliser. am na benn bu ñu taxawal Ndar am na benn bu ñu yóbbu Bambey am na benn bu ñuy waaj ibbi incha allah Ziguinchor wax annoncé nañu recteur ak ah, sëñ maam Thierno Kane incha allah année prochaine dinañu indi benn Orange Digital Center fii ci Touba. pour accompagner toujours université bi donc partenariat stratégique nañu bëgg a tëral te incha allahu rabbi ñu si fan yu néew ak le coordonnateur des travaux euh, formaliser loolu daal di benn partenariat waaye li ñu indi tey moom mën nañu wax ne acte un la si partenariat bi nga xamante ne moom la am ñun Sonatel fondation Sonatel ak université Cheikhoul Khadim